sommes-nous dans une démocratie républicaine donc euh, euh, mu def ci benn point d'interrogation premier bi deuxième bi di Sénégal comment lutter contre euh, les manipulations mu amaat beneen point d'interrogation donc Aliou Sow on peut commencer par le premier nga def sommes-nous dans une monarchie républicaine au Sénégal Euh, oui euh, c'est-à-dire que boo gisee moo poser question boobu tey ci suba bi. Mm-hmm. parce que dama yàgg di wax. Euh, euh, euh, système politique ou régime politique sénégalais bi yàgg di ko ŋàññ par rapport à justement à cet hyper présidentialisme mm. ba nga xam ni damay yaakaar ni des fois est-ce que ñun nekk ñu dans une sorte de monarchie donc républicaine li tax ma wax loolu je voulais juste en profiter seulement pendant que j'y pense il mm. a une dame qui s'appelle Mame Diarra Mame qui est à Malika mm-hmm. qui aime beaucoup petit déj ah, et de surcroît qui aime qui Alioune Sow. Mm. Euh, soxna si yàlla na yàlla sàmm. Ah, waaw man ko Cissé Ngari Ndiarmew waaw Cissé Ngari Ndiarmew. tëmbal tëmbal glace waaw. yàlla na la yàlla sàmm euh, euh, yàlla na yàlla sàmm yow yow mii Cissé yow kontaan nañu. Mm. pendant que j'y pense nii comme ça. ma ne ma ne xaaral ma xaaral ma ziar la bu wér a wér yow Cissé guddal fan. Mm-hmm. guddal fan et encore guddal fan yow ak sa njaboot. Cissé donc juste pour revenir monarchie mm-hmm. républicaine au Sénégal mm-hmm. parce que président de la République am na doole bi nga xam ne doole bu fort bi nga xam ne lu ko neex xeex lay lay lay def ci réew mi. Mhm. Euh, moo tax amaana xëy na boo gisee mu am set. Euh, Euh, euh, haine entre les hommes politiques surtout ceux qui veulent euh, ceux qui veulent rester au pouvoir en tant que président de la République et ceux qui justement veulent arriver au pouvoir mhm. muy am cette xëccoo bu metti bu nga xam ne da ngay da nga naan des fois est-ce que c'est le Sénégal véritablement qui les intéresse ou wala wala est-ce que c'est le confort bi nga xam ne moom la ñuy am en tant que président de la République moo tax mu jaral leen lu nekk mu jaral leen coow gi bari mu jaral leen ay ay ay ay ay lu lu kenn ci manipulation yi ci biir je sais yëpp faisant ça fait que ni nañ naan est-ce que un président de la République doit être aussi fort dans ce Sénégal là aussi fort mooy lan mooy yow yaay am le contrôle de l'Assemblée nationale. Mm-hmm. lu la neex nga def. boo nekkee président tout de suite da ngay am une majorité et le prétexte c'est la rationalisation euh, de la gestion des affaires publiques parce que dañu ne euh, il faut que euh, bu la falee ñu jox la majorité bu lay ànd ak yow pour nga mën a gérer réew mi yow comme yow ni nga ko bëggee mm. est-ce que loolu war nañ ko mën a nangu cim réew alors que pas forcément c'est pas parce que vous êtes élu euh, vous prenez l'exemple des États-Unis d'Amérique mm. le président de la République peut être élu comme ça mais mu am une euh, euh, euh mu pas forcément am une majorité à l'Assemblée nationale ou au Congrès parce qu'aux États-Unis c'est un Congrès avec euh, la Chambre des représentants et le Sénat qui sont réunis donc mm. euh, loolu moom mun na ko mun na mun na minoritaire alors que moom mooy président des États-Unis mm. parce que il n'est pas on lui a on lui a pas donné la possibilité de faire ce qu'il veut dans euh, ce euh, euh, ce pays qui s'appelle les est-ce que ñun waruñu évoluer ci moment euh, ci Euh, comment dire est-ce que waruñu évoluer. Mhm. ci ci ci ci dem ci doxalin yooyu. ba nga xam ne un président ne peut plus se permettre de faire ce qu'il veut parce que franchement man gëwuma ni benn nit kese kese kese war na mën a yor destin réew parce que nit. da ngay juddu da ngay am mbokk dangay ngay màgg da am ay sentiment da ngay yeewu da ngay mer lu bari da lay jot donc donc donc donc da ngay da ngay am ay ay kii ay inspiration peut-être des fois euh, euh, nga nekk ci ay euh, énergie négative des fois nga nekk ci ay énergie positive donc nit boobu dañ ko war a encadrer waruñu ko jox doole pour mu mhm. yor le destin d'une de toute une communauté de mhm. surcroît la communauté du Sénégal bi nga xam ne def na 17 millions d'habitants parce que mhm. nit mënul set kon ñun ñëpp àjjana lañ jëm wala yi yëpp du ko fi jaar mu di lu am solo et puis euh, euh, titre Walf Quotidien bi dafa am solo euh, parce que mu ngi naan Macky président donc mais oui mais quand on dit Macky omniprésent mooy le c'était Abdoulaye Wade omniprésent Abdou Diouf omniprésent mhm. Senghor omniprésent parce que Senghor il s'est permis aussi bu bu mu ne nasaxal noonu justement Mamadou Dia Abdou Diouf ñëw nasaxal Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade ñëw nasaxal kan Idrissa Seck entre autres ñi nga xam ne jàppoon nañ leen dugal leen ci kaso bi Macky Sall il revient c'est pareil avec les Ousmane Sonko avec les Khalifa Sall parce que tout simplement il a le contrôle du pouvoir judiciaire et ça à mon sens dañ ci war a waxtaan te dialogue bi man xaw ma lan lañ ci wax parce que lu nekk wax nañ ko. mais est-ce naa bokk bi lañ fa doon lijjanti. mais oui mais c'est ça qui est terrible. Mm. c'est parce que li ñu war a wax sur l'essentiel parce que ay nit la ñuy lijjanti dans dans le cadre de ces ce genre de dialogue là wala mm. comment organiser pour que telle personne mu am benn euh, euh, euh, retrouver ses droits wala yu demee noonu man je ne pense pas que ça soit une bonne idée li amoon solo mooy bu ñu naree lijjanti mbir parce que dama gëm ni constitution constitution bi baaxul il faut que ñu changer ko on ne peut pas avoir un pays où oui. un président de la république qui a tous les pouvoirs ne peut pas être responsable devant un parlement boo xam ne war na mën contrôler mm. li nga xam ni moom lay gérer réew mi ak ay ministre am ak ay collaborateur am mm-hmm. loolu dañ ko war a am cim bu ñu ko mënul am amuñu contrôle bi parce que tout simplement c'est le pouvoir exécutif qui tient le contrôle même au niveau de l'assemblée mm-hmm. a a def pour maanaam député yi nan la ñu war a mel ban taxawaay la ñu war a am ñu du lu ñuy wax kese taxawaay yoo xam ne dañ koy am par rapport à à la réorganisation ou ñu à la refonte du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Mm-hmm. ñu defaraat ko ba nga xam ne bu bu bu député fi nekkee dañuy xam ne yow peuple bi moo la yónnee comme ni mu yommee le président de la République. Mm-hmm. et que ñu changer aussi euh, façon yi falin député bi parce que façon bi mooy tax député bi gëm nekk pour réewam. Mm-hmm. ne moom moo ko fal. et le président de vie et de mort omniprésence. Mhm. vraiment c'est ça. mais Aliou Sow est-ce que problème bi du ñoom dañuy nguuru chaque jour ñu wax ko sur le plateau dañuy nguuru alors que dañu war a def seen bopp ni ñun ñoo leen fal te dañ fee ñëw. miin a daan doole askan bi ngeen que ça soit le ministre Absolument. le président le Tout député yéen ñëpp tey ji ñun dañoo boole jël suñu vote jox la pour nga doxal ci li nga xamante ni daf ñoo neex dañ laa dénk moomoo ko donc normalement ci li ñu neex nga war a dox mais normalement sax théoriquement wax nañ ko ci ci ci yoon euh, euh, euh, type de régime bi théoriquement wax na ko parce que on est dans un régime de représentation yow c'est pas c'est pas un régime impératif c'est c'est c'est un régime de représentation te représentation boobu mooy dama la yónni pour yow nga defaral ma lii parce que li nga ma wax yaakaar naa ni war nga ma kaa mën a defal donc boo ñëwee ci yooyu nga ma war a defal waroo bousculer mbir mi pour faire autre chose mhm. parce que tout simplement yow da nga ma war a représenter pour sama a par rapport ak man li ma bëgg waaye représentation bi bu amul parce que tout simplement benn nit nga ñëw nga ne ko yow defal lu la neex mhm. en réalité au Sénégal un président on lui demande pendant tout pendant diiru mandat ko ne yow président defal lu la neex yow la ñu dénk yow boo juumee baax na boo juumul baax na loo def baax na lu nit ñi nangu baax na li nit ñi nangul baax na yow président la république kenn munu la encadrer defal il suffit juste imaginer rek mhm. article 57 oui ngeen xool ko xaw ma ndax 57 la yooyu. ci ci ci constitution bi je pense que loolu la. Mm. boo demee nga xool article boobu. Mhm. tey jii nii même assemblée nationale bu nërmeelu woon président bi mun na gouverner par ordonnance. par ordonnance oui. chaque weer président bu ko neexee mu jël weer bi. teg ay ordonnance lu ko neex pendant un mois mu doog a defaat beneen ordonnance et il en a droit à quatorze maanaam assemblée nationale mën nañu ko tegee nale président sax au pire des cas ñu tegee ko nale président continuer di gouverner réew mi pendant juróomi at en tout cas loolu mooy c'est ça qui yooyu dama bëggoon ngeen ji si waxtaan Sénégal yi si waxtaan ñu ci waxtaan ci télé yi di ko waxtaan ci place yi ci mm-hmm. rajo yi di mm-hmm. ko échanger di wax ban mooy solution bi parce que un président de la c'est un être humain. Mm -hmm. il mhm. doit être contrôlé. te pour contrôler il n'a pas droit à nommer à tous les emplois civils et militaires munuma yeewu suba teel xool Théodore Sebedo ma ne ko yow laa yóbbu port. Mhm. parce que tout simplement samay sentiment ak samay bëgg-bëgg. ak mhm. samay mbir samay bagage yi ma bëgg ak ni ma bëgg organiser mbir bi ak yi ma fa mën a jëlee. ma ne damay nommer Théo parce que Théo moom wala xool li muy wax neexuma yow. ci kaso ba toppet yóbbu ci kaso est beaucoup plus compétent mhm. que Théo. waaw ayca xam nga lii ça ça montre encore une fois la démocratie qu'on agit tant n'existe pas en mhm. réalité parce que c'est dans les partis politiques où tout se passe parce que quand tu contestes la volonté du chef de parti mhm. tu es tey nii benn député bu voté woon contre benn affaire ñu gis ko base base député boobu militants yi faree ci parti boobu ñooy commencé yëngatu commencé taas ne diw dañ nga jëlee ko fi. ñu dem ba pousser la à la sortie mhm. nga xëy boo paree tat ñu ne waaw comme waa ji kii na dañuy dindi mandat am nga perte sa mandat député. Mhm. te fàtte nañ ne que c'est le peuple qui t'a élu. oui donc comme muy wane na encore une fois. mooy c'est à l'image de tous les partis tant les partis politiques ñoom ñëpp ñu fiy yooku démocratie. Mhm. muy Idrissa Seck oo muy Macky Sall oo ñoom ñëpp. ku si contesté Idrissa Seck mu ngi nii ñëpp ñu mu àndaloon créer réew mi ànd nañu bàyyi nañ. bàyyi nañ ba ñu koy commencé ne non wala mu yaakaar ne kii moo ko gën a muus wala commencé ne visible tuuti. Mhm. mu ne kii baaxul. on a vu Déthié Fall et ñu xëy ñu xëy Malick Gakou AFP. même chose Malick Gakou AFP. ainsi de suite PS. avec Khalifa Sall. oui ñoom ñëpp c' la même chose c' est en tout cas il faut ñu jàll ci deuxième sujet bi Aliou Sow mais waxtaan bi amoon na solo. ñu ñu ñu peut-être sax day nekk continuité. en quelque sorte donc ngay poser aux questions di laajte comment euh, lutter contre les manipulations. oui mais en même temps c'est très difficile dama poser question bi mais xaw ma tontu bi véritablement. ou alors wóoruma ni li may wax. xëy na loolu la parce que kenn xamul parce que sociologiquement euh, on ne maîtrise pas véritablement les Sénégalais ci seen i attitude ci seen i jikko ci seen doxalin ci seen niveau aussi de maturité civique par rapport aux faits de société mm-hmm. euh, aux faits de parce que tout simplement euh, Sénégalais bi parce que bu ñu leen mettre ci ay conditions c'est pas une question d'intelligence bu ñu leen mettre ci ay conditions de pauvreté wala de niveau social boo xam ne yow boo yeewoo suba teel yow yaa ngi tal loo loo lekk ak ko wala loo wala ordonnance boo dem a ñëw parce que weer baa ngi waaj a dee wala le 15 passé na. Mhm. stress yooyu ngay dëkk doo tal di réfléchir si comment fonctionne une société comment fonctionne notre pays comment est organisé le pays suñu alal bi lan moo tax ma nekk ci situation yooyu doo ko xalaat. li ngay xalaat mooy on te fait vivre au jour le jour donc su fekk su fekk ni yow da ngay yomb manipuler da yomb boo déggee dara nii par hasard rek boo gisee ñu naan ay dagg dagg dagg dagg dagg benn affaire sànni ko pour pour pour pour que a xoolee foofu kese du mën a xool en longueur wala réfléchir en mais parce que tout simplement il ne peut pas le faire parce qu'il n'a pas que ça à faire parce qu'il a d'autres priorités euh, qui sont justement euh, de survivre mhm. tout simplement au jour le jour te loolu moom mooy tax ñun ñuy xaw a sonn te lu ñu wax ñu gaaw ko gëm parce que on n'a pas le temps de réfléchir en profondeur en tout cas sur les faits de société ou les faits politiques mhm. parce que naturellement suñu priorité ci leneen la nekk ku yeewu da am ñu on on ne boo bëggee euh, kii nit boo bëggee Euh, loolu boo buggee boo buggee euh, rendre nit euh, kii du du duy xalaat boo bëgg muy muy xalaatam di bañ a sori. Mhm. da nga koy da koy da koy asservir dans la pauvreté. parce que pauvreté coono la. coono la quoi da ngay doo dund da ngay da ngay da ngay sonn dégg yow sa boobu parce que pour être à l'aise et, et réfléchir confortablement mhm. il faut que mu am yu mu àndal nga mhm. am le minimum incompressible maanaam boo dundee nga yeewu suba teel daf lay wóor ni da ngay ndékki mhm. ngay daf lay wóor ni da ngay añ daf lay wóor ni da ngay reer tey ji nii boo amee benn daggitu pali yow war nga mën a di am nga xaalis boo xam ne danga nga koy jënd da nga dem jëndee ay garab wala am na koo xam ne sécurisé na la ba boo demee ci ci centre ba euh, euh, wala espace médical ba moom dina la faj yooyu noonu amuloo ko donc donc da nga da da nga da ngay sonn ba pare d'abord lekk lekk quoi lekk normalement lekk ba suur être à l'aise avoir une autosuffisance alimentaire mhm. te yooyu daf ñuy sonal ba nga xam ne on ne réfléchit pas regardez bien dans les pays qui sont développés plus les pays sont développés xale yi c'est pas parce que xale yooyu ñoo gën a intelligent suñu xale yi ce n'est pas vrai mm-hmm. du dëgg parce que tu tu vois des femmes des gens des noirs euh, qui sont dans ces pays là qui sont hyper hyper bons euh, am xel mm-hmm. ba pare nekk foofu ay ay ay kilifa c'est parce que euh, environnement bi ñu leen yaree moom moo tax donc c'est une question d'environnement te environnement bi depuis 60 ans vraiment moo tax ñun ñun ñu ñuy ñu ñu ñu ñuy nax di di sonal parce que journée dafa gaaw il faut nga nelaw ci il faut nga lekk la parce que par exemple koo xamante tous les 3 mois lañ koy jox benn 25000 mu rëy lool ci moom tu te demandes naka lay def. mais sinon mais koo xamante ne yaakaarul tous les 3 mois benn 10 000 wala 5 nga ñëw ko jox ko benn benn 25000 alors que yow nga ceeb seeral nga diwliñ seeral nga suukar seeral nga lépp ba boo ko joxee benn 25000. on mhm. dirait que la vie est pour moom donc euh, on doit se poser certaines questions dans un pays solution yooyu dañ ci war di waxtaan parce que en réalité ba léegi solution yi amul. parce que hmm. depuis 60 ans bu solution yi amoon xëy na lii lii lii lii lii nañ ko bu yàgg parce que man dama gëm ni un pays avec 17 millions d'habitants je vous assure d'une chose te hmm. wallahi li may wax ni mën na nekk. Hmm. il suffit juste de faire des efforts on a 7000 milliards de budget. 7000 milliards yooyu am na ay foo ne bu ñu ko fa dugalee. ci juróomi at de Sénégalais bu ñu liggéeyee di produire quelque chose cinq millions laa wax dans tous les domaines d'intervention muy côté agriculture muy côté éducation bi muy côté santé bi bu ñu liggéeyee di produire ils vont gagner on va gagner de mm-hmm. l'argent te dinañu créer ay mbir tool yi dina fi bari lekk bi dina fi bari euh, faj bi dina fi bari mm-hmm. yooyu yëpp faisant ça fait que ni on mm-hmm. sera bien et quand on est bien quand on est bien on réfléchit en tout cas Aïcha waxtu wi xoj na ñu teewul euh, passage ndeysaan may jaali parce que on vient ñu dégg décès kii di feu euh, kii Henri Grégoire Diop bi fi nekkoon juge ah. may jaale famille am Eli Diop Robert Eli Diop frère mm. ah, bu nekk ci Pikine maa ngi koy jaali vraiment voilà di wax na ne carrément li nga wax solution mhm. nañu saytu port dégg nañ ne premier ministre daje na ak transitaires yi mhm. ak ñooñu waxtaan mais li fa am ci métit bi gars yi di dund ak commercant yi pour génnee seen marchandise dañuy fay ay frais magasinage ak yeneen affaire taxes yooyu nag mooy répercuté ci mhm. produits alimentaires yi ñuy jaay tata Penda mi ngi ñuy clin d'œil ñu lay jaajëfal bu baax ah, waxtu wee moo ñu xoj rek mais euh, nee na tuuti liggéey bi amoon na solo xëy na demain on aura le temps incha allah gën a yaatu ci ay points yu important donc euh, aujourd'hui euh, yaakaar naa tey Yacine moom bu ma ko jàllalewul pub bi dina ma daal di rey rek